ren incha allah niñ ko baaxoo defee rek euh, at mu nekk euh, kuréel gi nga xam ne moo yor wàllu wàllu jokkoo bi ci comité d'organisation bi te Serigne Cheikh Abdou jiite ko euh, dafay jëflanteeg daayira raw dora yaaxeen nga xam ne daayira la boo xam ne bu autonome la moom sax moo mag kuréel gi moo ko fi jiitu waaye ndegam liggéey bi ñoo ko bokk daayira raw dora yaaxeen dafay taxaw taxawaayu bras technique ci Euh, comité d'organisation bi lépp luy lépp luy continue ci li ñu war a waxtaanee ci émission yeeg ci kii yi moom moo ciy liggéey. Euh, ni ngeen ko xamee màggal Touba euh, xew-xew la boo xamante ni yëmul rek ci biir Sénégal waaye dafa yaatu événement international la ay réew yu bari dañ ci ñëw di fi teew diplomate yi dañ fiy ñëw diaspora bu Sénégal bi dañ fi dañuy ñëw ak seen taxawaay. waxu waxuma la biir réew mi nag fu ne la nit di jóge muy xew-xew boo xam ne tamit euh, presse bi mooy euh, këru taskatu xibaar yi ci an ci seenu wute yëpp moo xam yi ñuy gis la wala yi ñuy dégg wala yi ñuy bind wala sax site internet yi yëpp dañ ciy am taxawaay bu ama ama am solo ci loolu nag euh, dafay dafay jaadu kon at mu nekk bu màggal gi ñëwee nit ñi buñ ñëwee màggal si ñu bañ a yem rek ci mbir yi faaleen njeeg jaañeen yeeg euh, yu mel noonu ay jegeen yi muy xewlu rek ay bernde mu jeex ñu yëkkati jotaay bi waaye euh, lu toll ci ñaar fukki at euh, wala lu ko jege lu ko manqué tuuti Serigne Saliou Mbacké yal na yàlla dolli leeram moo ñu joxoon ndigal si bu màggal ñëwatee ni ñuy berndeele nit ñi ci wàllu xeewal gi ñu berndeel leen ci wàllu xel ak wàllu roo te mooy ñuy am amal ay daje yoo xamante ne ay waxtaan la ci waxtaane lépp loo xam ne dafay soxal réew mi du na yoonu murit waaye loo xam ne dafay soxal réew mi léeg-léeg sax da koy dépassé soxal àdduna euh, bépp ci ay question yoo xamante ni yu ama am solo la ñu ciy woo nag ay borom xam-xam yoo xamante ni mën nañoo ñii dañuy jóge biir Sénégal euh, ñii ay taalibe murit lañ ñii duñ ay taalibe murit waaye li ñu soxal mooy ñu euh, jegeele jegeele gisiin yi jegeele doxin wi ba euh, ak yomb mën a am ci euh, jàmm ak dëkkoo bu rafet euh, li ñuy tudde cohésion ci loolu nag ren incha allah dañuy amal benn forum ni mu ko waxee muy benn ndaje boo xam ne ab bis lay doon ab bis lay doon ñu di ci waxtaanee tomb bu ama ama am solo boo xamante ni soxalul rek Sénégal Euh, waaye soxal na Afrique soowu jant ak yeneen réew yoo xam ne sax nekkuñ ci biir Afrique euh, ca mooy ngirum imam Malik euh, courant la courant religieux la boo xamante ni ci wàllu fiq mooy nu ñuy dundee suñu diine naka naka lañ koy dundee da cee am ci àdduna bi partie bu ama am solo boo xam ne ñoom boobu lañ lañ jël. mooy bisu màggal gi conférence bi ci guddi gi. boobu mooy moom it événement phare la bu ama am solo boo xam ne ci cosaan sax loolu moo taxoon daayira bi euh, sos euh, guddi màggal gi am na waxtaan wu mag a mag wu ñuy amal fii ci salle de conférence bi fii thème ren bi mooy jigéenu murid yi ban taxawaay lañ am ci wooteb sëriñ bi waaw la femme mouride euh, la position de la femme mouride par rapport ak à la kii léegi su ko defee yooyu ñu waxtaane ko mu doon yoo xamante ni yu ama am solo la loolu nag bokkut ak émission télé yi ñuy def ak ay mën une trentaine d' émissions yoo xam ne at mu jot dañ koy dañ koy dañ koy préparé waajal ko tànn benn thème central boo xamante ni moom la mooy mooy kii ren mboolem émission yi télé yi ñuy préparé avant la màggal nag laa wax avant la màggal balaa màggal gi yu ci yëpp dañ koy joyal mu jëm ci fàgg ween wu law xam nga ni nit ñi léegi fi ñu toll ci wàllu am-am ak wutiin daanaka dañuy dañuy bale rek yooyu nag dana taxaw dana jar léeg-léeg tamit ñu waxtaan ceeg nit ñi Euh, wutiin wutiin wu lew sëriñ bi naka la ko joxe woon yitte waaw liggéey baax na waaye nag liggéeyeen tamit am na solo lool lool lool yooyu mooy moom mooy euh, euh, thème bi nga xamante ni daanaka émission télé yu baree bari moom la ñuy wax alkasbul xalaal ci la ñuy waxtaan yooyu ci anam bu tënku mën nañoo wax ne mooy activité yi gën a fees bu ci yàlla àndee ren yu ñu war a def jotewut ak dara nag yenn émission yi ñuy def ak yenn jotaay yi ci biir màggal gi yoo xam ne dañ ciy ànd waa comité d'